أسير مع الأبرار هنا أسير وسمى بدمي هناك أسير man maa ngi tudd lieutenant de police Ibrahima Diop nekk commandant de corps bi ci commissariat spécial de Touba ñu naan ko commissariat Janato boo comme ni ñu ko doon defee at yi passé yëpp police nationale dafa dellusiwaat pour wax leen plan de circulation bi nan lay tëddee. plan de circulation boobu nag préfet moo ko euh, tënkoon mu ngi commencé ñetti fan ci weeru octobre jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ci guddi bon bu ñu jëlee sens bi nga xamante ni moom la ñuy wax Diourbel Mbàkke Touba mooy tali oto yi nga xamante ni dañuy jaar ci RN3 route nationale numéro 3 euh, am nañ ci ñaari possibilité bi ci njëkk moom mooy ñu traversé fi ñuy wax Mbàkke alors bu ñu rombee campement touristique ba weesu ko ak euh, téeméeri mètre su boobaa dañuy daal di jël seen doy jot euh, maintenant daal di traversé tali bi nga xamante ni moom moo jëm Kaffrine léegi nag dañuy daal di génn ci rang-rang bi tali bu xonq bi tali bu xonq boobu nag boo ko toppee euh, da ngay dem ba Daaru Salaam jubal génn Touba fa ngay génn nag daanaka moo post contrôle bi soriwul ku mu neex aussi mën nga continuer ba intersection MK excellence bu bi ñaan naan fa Elton nekkoon boo ñaareelu possibilité bi mooy lenn euh, boo ñëwee ba ci station Total bi da ngay daal di jàdd sa càmmoñ boo jàddee sa càmmoñ jëm ba ci rond point euh, héliport bi euh, jaar buntu gare routière gare da nga koy bàyyi sa càmmoñ am na nag benn rond bu mag booy jàkkaar lool mooy rond point boo xamante ni moo séparé Touba ak Mbacké boo tourné sa càmmoñ rek su boobaa da ngay daal di jàkkaarloo ak soror jumaa ji moom ngay continuer nag ba daj ci beneen rond bu mag bu ñuy wax rond point poste de mooy rond point xayra rond point xayra boobu nag oto yi bu ñu fa yeggee ku amul laissez-passer da ngay daal di jël corniche bi wala da bu fekkee ni ñëw nga ba héliport bu la dangay da jàdd sa càmmoñ alors boo jàddee sa càmmoñ continuer daw lu xaw a tuuti su boobaa da ngay jàkkaarloog beneen rond bu ñuy wax rond point Touba rond-point Touba Ndiarème boobu tamit da ngay daal di euh, jàdd sa ndeyjoor jaar fi ñuy wax kuy sew pencu mbay wàdd wala tamit bu fekkee ni ñëw nga ba ci rond-point euh, Touba Ndiarème bi da ngay continuer tout droit dem rond bi ñuy wax rond-point Touba Fall boo fa yeggee nag da ngay daal di jàdd sa ndeyjoor alors boo jàddee sa ndeyjoor tar jël jël tali bi nga xamante ni moom la ñuy wax tali jannatu bi di jaar buntu. commissariat euh, Touba. alors boulevard Sëñ Cheikh Bombali bi nag boo fa yeggee euh, foofu moom dañ leen daal di dévier mooy ñi nga xamante ni yoruñu laissez-passer dañ leen daal di dévier waaw bu ñu leen dévier dañuy jàdd ñuy jàdd seen càmmoñ ñu ngi jëm euh, Daaru Xuddoos ñi jàpp seen ndeyjoor ñoom ñu ngi jëm Daaru Minam wala Xayra alors borom laissez-passer yi nag ñoom may nañ leen ñu continuer mais ñoom bu ñu weesu boulangérie Sam Jaxate donc oto yi nga xamante ni ñoo jógee euh, Kébémer Daaru Moussi ñoom dañuy continuer rek ba ci euh, kii bi nga xamante ni si bassin bi nga xamante ni moom la ñuy wax bassin Sëñ Moutala buñ ko rombee tuuti su boobaa lañ leen daal di dévier alors bu ñu leen dévier nag ñi nga xamante ni ñoo jëm sa càmmoñ ñoo ñi ñu ngi jëm euh, fu ñuy wax Gédé wala Soura ñi jëm sa ndeyjoor foofu ñu ngi jëm. fale toujours Daaru Xuddoos lañ nekk mais dinañ dem tamit biir Daaru Xuddoos plus kër sëñ euh, sëñ son bu alors bu ñu jëlee sens bi nga xamante ni moom la ñuy wax Kaffrine Mbacke Touba foofu dañ ne oto maanaam benn fil rek la ñuy def bu ñu rombee poste de collecte bi après bu ñu rombee nag garage bi foofu la ñu ni daal di euh, foofu la ñuy daal di tourner seen ndeyjoor jël boulevard Gaaraan Gaawaan ba ci intersection bi. intersection boobu nag moom moo rongé euh, li nga wax moom mooy raay yi maintenant bu jëlee beneen sens bi maanaam Linguère Daara Touba par la RN3 oto yi mën nañoo continuer ba ci rond point Touba rond Daaru Jolof bi ku mu neex nag mën nga jaar ci euh, corniche bi maanaam sa càmmoñ wala sa ndeyjoor léegi nag boo continuer ba ci biir boo yeggee juste à hauteur de la gare de Daaru Jolof foofu nag lañ leen daal di dévier. mais ñu yore laissez passer may leen ngeen ñu continuer ba ca kanam maintenant pour génnaat Touba soit da nga génnaat nga jaaree Mbàkke mais oto yi nga xamante ni yi génne Touba pour jaare Mbàkke mën nañoo jël li nga xamante ni mooy wax moom la ñuy wax RN3 su boobaa ñoom dañuy jaari euh, jaar fi nga xamante ni moom la ñuy wax euh, tabla caa bi jaar buntu kër euh, si xalif général des Baye Fall bu ñu yeggee fële. Euh, ci station euh, station Shell bi dañuy jàdd jàdd seen ndeyjoor jël tali bi nga xamante ni moom moo jëm fële seen o léegi nag pour génne Touba may nañ leen ñetti bunt bunt bu ci njëkk moom mooy tali jannatu bi bi nga xamante ni moom mooy jaar buntu ak jannatu boo yeggee ci rond point bi plutôt rond point Touba Fall da ngay daal di jàdd sa càmmoñ rek daal di jël deux voies nga beneen génnukaay bi nag moom mooy. bi nga xamante ni moom mooy jógee post contrôle dem euh, fële entrée Mbacké te naan ko rond point total boo ñëwee ba ci rond point bi da ngay jàdd sa ndeyjoor boo jàddee sa ndeyjoor continuer bàyyi toujours encore gare routière bi sa ndeyjoor boo continuer ba ci euh, rond point bi ñuy wax rond point héliport maanaam da ngay daal di continuer waat rek bul jàdd continuer nga dem ci RN3 bi wala aussi beneen sortie bi ci mujj moom mooy euh, bi nekk jëli ci corniche bi. jaar guy sew romb péncu mbay waat boobu aussi ku fa yegg si tamit donc boo ko traversé ba noppi da ngay daal di gis rond point boobu ma la wax rond point Touba Ndiarène foofu ngay yegg boo fa yeggee continuer jaar buntu euh, gendarmerie. alors circulation bi nag biir Touba nii lay tëddee donc euh, charrette yi moom dañ leen tere ñu daw ci euh, tali yi alors tali gede bi aussi danañ ko tijji dans les deux sens. Euh, tali bi nga xamante ni si mooy tali Bakhaya tali bu bees ak euh, corniche euh, ak tali bi nga xamante ni moo jógee ci corniche bi jëm say soin bu yooyu yëpp circulation dans les deux sens tali beleel bi aussi tere nañ ku jógee ci corniche bi jëm station Daaru Xuddoos boobu tere nañ ko mais ku bëgg a génn tamit boo jógee tali Daaru Xuddoos boo la neexee boo wëree foofu ñu ko waxoon rek da ngay daal continuer tout droit génn bon circulation yi nag tere nañ ko groupe porteur ci biir Touba ñoom dañ leen wax ak fu ñu mën a jógee dañuy daal di jël euh, corniche bi bon moto jakarta yi nag euh, tere nañ leen biir euh, biir Touba ñoom daanaka mën nañoo yem Mbàkke rek mais Touba moom kenn woowu leen fa ñoom moto jakarta yi. waaw ah, police nationale nag boo leen ko soxlaa ci biir màggal gi mën ngeen ne woote ci numéro bi ma leen jox mooy 78 295 34 34 ma bantuwaat ko 78 295 34 34. police nationale nag mi ngi leen ñaanal ñu màggal ci jàmm mais nag mesure barrière ñu bañ koo fàttee respecté jërëjëf. David